salaam. ma kontaan ci sa teew bi fii ni tey ma dalal la fii si Banjul Night Life ma bëggoon pour nga introduce sa boppa ni ñaa la seetaan. waaw man maa ngi tudd Lamine Samb ñu ma woowee Paa Fati comme euh, Casamance Ziguinchor laa dëkk wala juddoo wala yow. naa si li nga teew fii nii tey ah, maa doon def tuuti research si yow gis ne fi ah, boo amee nine years nga doon di wéy ma bëggoon pour nga waxtaan ak ñun naka nga nekk di loolu dama si dama xanaa sant yàlla rek ndax dafa fekkoon suma yaay ci boppam moom da doon woy nekkul artiste waaye dafa bëggoon woy dafa defoon nekkoon ci ay groupe de théâtre dem bale amoon baat bu ne dan man mako jëlon ci biir kër gi dama ma nekkee xale ma daan jàngal woy ma baal ma dama soj ma daan jàngal woy noonu noonu la ak daal borom bi yàlla mu may doom yi tamit di woyantu woy yooyu ma nekkee xale daf ma koy kon fàttaliku nee na daay ma nekkoon xale woy bu ma dégg tey mën naa ko mun ci saasi dama sama xel mo ci jox wala ma bëggoon woy bëggoon xam nga ci loolu nag euh, laa commencé bëggoon pour nga wax xamal ñu ci Sénérap ak Sou waaw Sénérap ak Sou rek benn groupe bu nekkoon senegaal bu ñu nee Positive Black Soul mooy DJ Awadi ak Degiti yi ñu nekkoon suma xarit ñoom dañu dañ ma déggoon Casamance mooy woy mu amoon ay boo yu ma doon àndal euh, ñu déggoon sama sama sama musique foofu ñoom ñu war a génne benn compilation pour dimbale. mais foog ñu jël waa Casamance ak Casamance euh, ñan ñoo fa nekkoon man la woon ak suma benn boy bu ñu ne Jibi Jeete ñu créé woon benn groupe bu tudd Wulaba Sound moom lañu gar moom laa gardé ba léegi ndeen dafa amoon beneen groupe ñeneen ñaari groupe yi fa nekkoon ñi kenn ñenn gaa ngi tudd digital ñenn ñaa ngi tudd YouTube ñu boole ñu ci benn track pour Peace of Casamance ndeen ñoon gaa yi foofu lañ ma woowee ndax dañu yàgg dégg may woy affaire xeexu Casamance ñu dugal ñu ci daal dafa fekkoon ni que dégg ci ak awar yi samay xarit lañ ñu yàgg gis naa ne danga dee ñëw Gambia lu bari léegi ma bëggoon laa laaj yow naka nga gisee Gambia music industry. yeah Gambia music industry bëri na talent trop bëri na talent booy yàlla def leen may talent ñu woy mën nañ bind mais lu ma ciy dolli mooy maanaam booy dañu war a tekki promoteurs yi dañu war a góorgóorlu booy yi tekki waa dëkk bi dañu war a góorgóorlu booy yi ñu tekki ñu am xaalis ñu bàyyi leen ñuy tukki. ñoom tamit ñuy dem di indi ay Grammy Awards c'est plus important waaye booy nañ nekk fii di blow blow pare tekkiwuñu si amuñu si xaalis dañ leen commencé di fay xaalis bu am njëriñ loolu moo gën a am solo quoi parce que talent bëri na fi trop waxuma duñ leen fay lu mat de waaye li ma li ma sant yi bu ñu gënee am xaalis dinañ mën a dawal oto rafet am ay kër yu rafet. naa ci leen loolu loolu am na solo solo. léegi ma bëggon la laaj am papa ji ban Gambian musician ko xam ne liggéeyaanguloo ak mom way bëgg nga ak liggéey ak mom kan la. mun ah, Gambia ñëpp laa bëgg a liggéey. ok ñëpp samay problème yi sister way ma ngi liggéey na ak ci uh, small. ci small bu baax bu baax bu yaru paré bëgg lu may def. taacul leen ci small. paré nak liggéey na ak Big Fa mu ngi fi sax. wa flock Studio. xam naa seen producer euh, Mohawk c'est ma bro xam naa ko def fii Suida xam naa daf wut gaa yëpp xam naa leen ñoom nekkoon naa ñoom fële an euh, am naa projet tamit ak Freaky Joe euh, liggéey naa tamit ak yenn artistes yu bëri daal like naa tamit pour liggéey ak ñi ma gis fi léegi ni ñu doon woy abu ak fafa waaw ñii lu ñu woy neex tàccu leen abu ak fafa maanaam ñoom daal jàmbaar lañ waaw gars dañ nekk ay ndaw du woy woy bu neex macha allah dëgg la léegi sama dream tamit mhm. ah, woy ak artiste yëpp dëgg la moom ji moom bokk nañ benn compilation mhm. ana team ji <laughs> moom gisee moo ko gisee tam mu doon booy bu yaru foog ah, naa liggéey ak moom tamit sama dream la tamit pour liggéey ak Heartbreaker love him man di Montréal love everybody bëgg naa liggéey ak ñoom ñëpp li di ñaan ñoom booy dañ jàppante jàppante bay xulu amul solo di Fafa di wax tey du bari ma bëggoon pour nga wax sa laas kaddu bi képp nga xam ne mu ngi seetaan ma bëggoon nga waxtaan ak ñoom rek lan mu lan nga am pour wax waaw li may njëkk a wax mooy yal na yàlla indi jàmm Casamance sama dëkk yal na jàmm ñëw foofu parce que may gën a ñaan tam jeunesse mag ñi fi nekk nañ joxante réew mi ñu joxante loxo di ñaan Afrique di moytu tubaab yi di ñu boole dañu jàppante bu baax ci time ñu liggéey ñu développé ñun ñu suñu bopp loolu mooy sama combat fépp deux aussi tamit di xamal Gambien yëpp Gambie Sénégal Casamance ñun ñëpp benn lañu man su may ñu ngi fii yéen say waajur ñu ngi Casamance ñu ngi Sénégal benn lañu dañ jàppante bu baax ñu bàyyi di wax fii Gambien ñoo fi moom fii Sénégalais ñoo fi moom loolu rek moo des Afrique te loolu baaxul ñun buñ ñu jàppante foog naa ne ñu yàpp ma gën a dolli aussi tamit gars jàppale rappeurs yi woykat yi nekk fii nañ leen jox gën a jox cër parce que le mérite nañ leen gën a jox cër ubbi leen bunte ñu dem tourner ci kaw am na solo trop di leen remercier tam si émission bi yu mel ni mooy tax gars yi gën a xam euh, musique gambienne bi fu muy toll man li may gën a wax gars yi man du sénégalais duma gambia man africain la am pan africain ken mënuma dal dàq gambia ken mënuma dal Dak botswana fii laa dëkk fi ma dem sama I love you all people thank you so much kon nak gañ ñi ñoko dégandor fa di wax na ci lu am solo ma bëggoon képp koo xam ne ah yaa ngi seetaan ñu góorgóorlu bu baax a baax téewante ñun yëpp ñu doon benn parce que Sénégal ak Gambia yëpp benn ah gannaaw buñ waxtaanee faafa di ba pare comme ni ma ko waxee woon rek ngi am ji ci biir kër gi moom ndaw la boo xam ne wax di neex yàlla kaar macha allah mun na liggéeyam xam na lu moo def ma kontaan si moom bu baax a baax a baax a baax ma bëggoon ngeen tàccu ji mu duggati fii nii ñu waxtaan. jibu na def. man maa yoo kenn. yaa ngi right ma bëggoon nga introduce sa bopp rek sa fans yaa ngi la seetaan. Uh, maa ji uh, Parola Cosa Nostra new era and I want to shout out to my fans for being here yeah because they always support me uh, like wherever I have a show like they all here and I really appreciate that shout out to Team G Team G clap for yourselves <laughs> Ah, kii ma bëggoon laa laaj ah, gis nañ ne yow ndaw nga te yaa ngi rap fii Gambia suñ ooyee sa rek ñëpp xam nañ li nga def ma bëggoon pour nga wax ñu naka nga fii si loolu noonu. Ah, ok léegi agana point boo xam ne amatuma dellu gannaaw parce before it was more like